waaw asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna waaw Ovision ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sunu mbokku éleveurs yëpp di leen jaajëfal man nag maa ngi tudd Siré Diakhaté di est-ce que sax léegi maa nekk directeur général bergerie Bac bi parce que léegi xale yi dañ ma cee wutule ak ak associé yeeg tabarkàlla daal njaboot gi dafa yaatu. waaw bokk daal ci ci ci bergerie alhamdoulillah de de de de Siré et frère hein, dëkk Parcelles Assainies unité 10 du juddoo parcelle yaroo parcelle di éleveur nak waaw su ma fukki métier tam bobu lay jiital ndax moma ci gënal waaw Adam comme nuñ ko baxo di défé sa ñu organiser rek comme membre lañu depuis dañuy faral di teew léegi euh, yii foire départementale la ñuy waaj foire bu mag bi. Euh, Saladam ñu ngi ko au mois de janvier 2023 euh, Les dañu ñëw fii bi foire éliminatoire la les qualifiés euh, vont être les exposants à à la grande édition euh, au mois de janvier Inch'Allah. Waouh on peut mieux faire parce que équipe bu bees bi man li may wax naan naam mais ci ñoom la bokk ndax ay Euh, ñi ko yoroon ñu koy jaajëfal bu baax sunu président ak sunu nijaay sunu xarit euh, Abou Kane yoroon ko def ci liggéey bu rafet mën naa ne pendant dix-neuf ans muy liggéey euh, neuf ans en tant que président ak dix ans en tant que secrétaire général même bi muy nekk secrétaire général tamit daanaka rôle président la amoon mu def fi liggéey bu am solo baax na léegi mu dem dallu bàyyi bàyyi ndaw ñi équipe bu bees bi ñoom itam ñu doxal tuuti ñom pour un début c'est c'est à encourager waye du ñak nak mom mu am yenn yenn yenn rëq-rëq ak yenn yo xamné c'est c'est c'est à satisfaire bon ñu ngi leen ni ñu ngi leen ni euh, encourager ci li ñu jot jot a mass new waaw loolu machallah bon fi li manquement yi bari na parce que bu ñu joggé ci autosuffisance en viande en mouton dañ ci joggé man ma généraliser ko ne autosuffisance en viande lool nak pour ñu. pour ñu am ko ñaar ñi rek mooñ ci mën a dimbali mooy mbay mi ak càmm gi mbay mi nag dafa war a jiitu ku mel ni maam nous sommes des éleveurs mais mettre ñu en avant agriculture bi te moom je pense que c'est la base parce que boo bëggee bëri jur foog nga am li nga leen di jox nit ñi ñàkkuñoo mën a bañ bëri jur Sénégal mais peut-être ponte bi moom moo xaw a jafe minoterie yi saaku ripaas mi ngi koy jëndee à onze mille douze mille métti na ci ku yor benn benn nombre de bête bi day xaw lour luur eh, da fay nek budget mais bu fekkone yalla dogal na nga nek baykat di xonta li li li jur gi di dundé, muy joggé ci yow li nga xamné ne yow yaa koy produire loolu mën na yomb loolu man ma ngi ci ñaax sama bop di ci ñaax sama ñi ko sañee wax xalé yi nañ ci gëna gëstu gën ci bàyyi xel Europe lu ñu devancer surtout agriculture bi parce que bu ñu ne autosuffisance en viande ou autosuffisance en mouton mënuñu ko def tank amuñu lu jur gi di dundé. loolu li tax waxuma sax euh, Europe sori na mais sous région bi li tax ñu ëpp ñu jur mooy dañoo gën a nangu bay sénégalais sunu maam yi amoon culture bay waaye ñun suñu toll nii xale yi ñun ñëpp ñu ngi concentré wu fii dakaar ku ci nekk jàpp am ci loo jàpp mais bay gi dese na daal gës na bon war nañ koo mën a gën a gëstu ci li ma xalaat. waaw dab gi nag moom dina xaw a jafe waaye. ñu ñu ñu ñu roy rek. waaw ñu roy tubaab nag lim ñu rawee. ñun africains yi sax foofu dama fi bës sama baaraam tuuti ñoom dañu roy ñun nag dañuy kuje roy ak kujje nag dañoo niroo mbubb waaye <laughs> waaye bokkuñu c'est ça le problème de l'africain ak ñi ma ko sañoo wax ah ma ma jiital sama bopp. parce que nit day roy mooy day gis nga am lu baax mu fexe am lu baax lu mel ni loolu te du la yàqal sa lu baax ñun nag maar de si yàlla nuñ si yàlla musal sama classe gi day ndeke day am lu baax. dañuy bëgg am lu baax lu noonu waaye ñu faxas lu bon du nit ku ñuul wala africain ñu en général du ñëpp nag je peux pas généraliser pour euh, comme ñun dañu bëgg toll foofu may ñaax encore si ñi ma ko sañee wax ñun jeunes ñi ndaw ñi nañu roy te bàyyi parce que nous amul benn benn benn amul amul rendement amul finalité roy nag tout le temps da ngay rek parce que boo royee lii am ko da ngay

boobu moom culture fourragère bi moom moom mooy mooy yoon bi jiitu waaw te gis naa ni léegi gars yi ñu ngi ci ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax te danañ ko gën a gëstu yàlla ñu yàlla wane la waat ci jàmm waaye ñu fi toogaatee ji di di nga dégg ni dinaa la wax ni man def naa ci nii bi parce que bëgg naa ko c'est la solution yoon bi foofu la. waaw Sidi Anta amoon naa ci li may wax sànq ba may ba may ubbi comme léegi man moomatuma

lim ci jot a am ko ñun itam lim ci am yalla barkel ko euh, mu nekkon ci man ben moment mu liggéey ci able won ko ay bergerie différents ñoom itam ñu liggéey ci donc ma sét ñu xar bi dafa jot a tout le temps duma tok une semaine bo xamné laaju ñuma lu jëm ci mom j'ai jugé nécessaire ma indi ko fi comme public bi fi la ñuy mën a ñu bari dañ ko bëgg gis waye tànk oyoful pour tout le temps nit ñi dem visite à la maison diko gis ñu gis xar bi au moins dans le futur ñi ñi ñi ñi am descendance am ñi ñi koy kii ñu ñu xam ni mës nañ ko teg bët loolu rek lañ ci jublu sinon mi ngi ci vidéo yi mais jëmm gi nit ñi gis ko loolu lañ ci jublu moo tax may indi ko. waaw euh, kii moom xam naa ci yaakaar yi la bokk nañu ko ñaanal rek wér ak mucc ak gudd fan bu ko yàlla defalee daal waaw moom Picasso moo ko jur. waaye yaayam di grande sœur euh, si suñu champion bi dëddu jamono jële Nogay. yaayam ak Nogaye bokk ndey ak baay donc mom fixé salum la doomu salum bu gor moko ko jur ak doomu salum bu jigéen donc dañ ko fixé il a il vient juste d'avoir 4 mois mu ngi tudd Pablo Escobar waaw xana di wowat passionné yi ci élevage bi rek parce que sam itam euh yomb na ni ci kaw mais yombul ci souf donc képp ku ci dugg bala ñu jiital côté business bi sax bëgg naa gars yi gën a gars yi gars yi gën a góorgóorlu jiital euh, bu fa passion bi nekkee boo bu fa bu jiitoo ci yow rek leneen luy ñëw après mën na yomb waaw donc euh, bépp passionné euh, bu fekkee ni lii soxal na la ñun moom bergerie alhamdulilah ubbi nañ buntu yi ku ci ñëw lu yàlla dogal muy sa wërsëg suñu lañ la ci jàppale suñu kenn kàttan lu ñu am tag te mën ko te xam ko itam danañ la ko wax weesu loolu nag duñ ko duñ ci mën a àgg kon ñu ñaan yàlla defal ñu jàppandal vision dem ci kanam a kanam ba nekk ay télé ah sama waaj